Bouya Dièye madam Diouf Bouya Dièye Mrs Diouf wara a sëkk ak moom ay waxtaan am na ñaar yu war a leer benn bi ci njëkk mooy euh, si Sy Mariama Sy yow mii Modibo joxoon na ma sa numéro waroon nañoo waxtaan yow mais sant yàlla yaa ngi ci live bi ñu war a topp ñaari suivi mooy Mouhamed jàllo la mu wax ci buya waxtaan naag ñoom ñaar am na suivi jot naa ay capture jot naa ay transfert leneen li mooy li ñu wax ne nit dafa ñëw na ko dimbali ma ci këyit mu ne kooku bul ma fay dara yamul ci bul ma fay yëkkati xaalisam joxe ko ngir ñu tabax néegu yàlla loolu it jotaguma imam bi guñ koo wax duma ma lu dul dëgg dama dama tëjoon micro bi soxna si soo ko mënee tijji ma wax la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu la dalal la waaleykum salaam wa rahmatullahi taala dañuy ñëw ci laajte bi directement parce que xam nañu li ngay def ak yaay kan ak yi ci xewoon démb tey dama bëgg a dimbale taalibe nandite yi nekk ci àdduna wërngal këpp rawatina ñu dugg Amérique. ay wanna go straight to que nekkuñ fi pour raayante ak neexalante. Euh, nga xam ne dafa dugg ci réew mi biir Amérique te jaar Nicaragua. Mm-hmm. coono yam daj yeb mu jall ba ne caraax amerique xol rek siggi gis lampe yi amerique koku lan moko war ci walu keet lan la wara a def ah cheikh bi ma ngi nuyu sa auditeur yëpp ak euh, kep ku nekk di la deglu mo xam deglu mhm. ah legi dañuy commencé waxtaan bi wax lan moy nga ñëw cross border bi dugg si lan moy lolu first of ki nga xamne dafa dugg ci rew mi. jóge jaar Nicaragua kooku lan moo ko war. first of mhm. euh, boo ñëwee ci dëkku jàmbur kenn invité wu la kenn jox la autorisation nga dugg. Mhm. nga ñëw franchir border bi. Mhm. xamal ne def nga benn crime. you have one strike on your back. ok. loolu loi bi mi ngi koy définir mooy. bu fekkee dugg si nga traversé nga border bi. ñu jàppale ci diggante deux semaine mm-hmm. ba pare diggante hundred miles. Mm-hmm. from the border. yow yaa ngi in expedited removal. xaaral ma expedited mooy ñu gaawantu taxañ la. Mm-hmm. yow loolu boo ko defee munoo am parole munoo am parole work permit bi nga xam ne dafay def six months. loolu la tuddee expedited. di nga gis ñu jógee Nicaragua. ñu apply for parole work permit te fekk mënuñu ko am ñu reject leen mais dinañu am bu six after five months a hundred and fifty days ñu may leen thirty days a hundred eighty days ñu educate on their work permit ñu jox leen work permit mais ki ñu parole nga xam ne da nga dugg si ok ñoom nga wax fa histoire bu ñu gëm dañ lay parole te suñ la parolee mën nga am work permit bu six months ok mhm. because you not an expedited removal mais ex yéen ñi ngeen yor seen papier xool leen bu ngeen gisee ci kaw expedited removal ok yooyu ça veut dire que mënu leen a am work permit bi nga xam ne six months lay durer après ñu yokkal leen balaa five years yi est-ce que yéen may comprendre. Mhm, maa ngi lay comprendre bu baax. ok euh, donc ñaari critères yooyu la. two mm. weeks. ma ma ma ma ma. Ndiogo na nga def. waaw cheikh bi ziar. ndaw ci lan la wax. Euh, dane bi euh, crime la mais crime ak délit du le lolou délit la bo euh, ñu jaar Nicaragua ñu am work permit au delà de six mois limi wax d'accord petit frère dugal na asilam asile. work permit sécurité le le septembre la ko jot wol permit 5 ans la jot limi wax nonu d'accord ma ci motax ma yegal ndaw si waxut li nga wax ah non non non dang ko déggul madame Bouya répétez ko li nga wax s'il te plaît monsieur Ndiogu ñu lay dalal yang ci jam wa ma ngi ci jam bu baax alhamdullilah legui dama bëgg ñu nekk sur la même longueur d'onde nga jox ma déglu bu baax nga comprendre so comprendre rek dang may arrêter ma expliquer ndax lolo ma fi ok dafa am ñaari façon dafa am ñu nekk in removal ak ñu nekk expedited removal ok expedited removal mooy dañ lay expédier sa dàq pour génne la kooku munoo am parole ba six mois mën nga toog nag ñu jox la work permit bu five years after the five months hundred fifty days li ma wax dafa leer nañ ok boo nekkee expedited removal

wala fañ la jàppeeg fa nga jàllee 100 100 kilomètres la yaa ngi expedal remover mom loolu la wax mais waxut do am working permit yegul ci euh cheikh bi bàyyi ma bàyyi li wala len sama sama rax mi ngi départ euh, Sénégal fini euh 30 mai 2023 genre su ma mi ngi dug Amérique euh, après 11 mai bi tok na ci camp ci camp genre du ma ne sax camp la parce que prison la quoi.

mais mom positif la guéné man am amna amna na am na ñu ma ñoo xamante ni dañu cross border bi. man ko am patience déglu la. mais yow ci da nga bindu wedd ma yéggal manam lam wax ak li ngay wedd du ben lool la bëgg nga comprendre manam sa kaa war yow. wa mom waxu ci dara weddu ci dara man ma ci dara mais lamuy wax ak li ngay wedd modul ben ma gëm ne comprendre lo te ci nandite nga wara comprendre motax ma yéggal la mais batay wax. ah kon baax na. bokk leen sa li ngeen wax moom daf ne dégluwaatal ma wax bu baax. moom ah. daf ne. boo jaaree Nicaragua. ñoo ko ah. waxee Nicaragua mais ku dugg Amérique te amoo visa. waaw ah. jour bi nga duggee. waaw ak ci loi. soo jàllee ak fañ la jàppee ci frontière Amérique di cent mètres cent cent miles cent kilomètres. yaa ngi ci removal removal taxul ne dineen la yóbbu wala duñ la yóbbu waxul loolu moo tax bokkagu leen wax xaw ma nag ah, si si li mu bëgg waaw léegi dama lay wàccee nga gën a déglu nga gën a comprendre lu la ci réer nga ñëwaat si si jaajëf nante <laughs> waa yaa ngi tolloon madame Diouf ci nit ki bu jàllee après deux semaines mhm. wala cent ci booda bi mhm. mu ngi extradar removal loolu nga wax mu ngi mu ngi expedited removal. lan mooy expedited removal te nga wàññil ma anglais yi yokkal ma olof bi ndax su may audience dégguñu anglais. waa d' accord léegi expedited mooy. Mhm. takkaa dafay delloo la dafay gaaw a yomb day yomb ci ñoom parce que ñu ngi lay paree taxañ. ma mhm. jox la exemple bu pertinent boo dugg see kenn gisula ci booda bi nga jékki-jékki ñu jàppee la Maryland Maryland nga def fa benn un mois yow nekkatoo expedited removal. Mhm. parce que Maryland ak boode bi ëpp na hundred miles te dog toog nga ci biir Maryland benn ëpp na two months mm-hmm. yooyu ICE dina la bàyyi nga toog fii you are in removal mais nekk lu expedite mm-hmm. dina la bàyyi nga toog fii dina la jox yow day in court maanaam di nga taxaw ci kanamu juge mais kenn yàkkamtiku la mm-hmm. est-ce que comprendre nga bu baax bu baax ok thank you so much ok donc that's the first thing ma doon def différence expedited removal ak simple removal ok Mhm. légui li nga wara def dafa am euh, ben euh, loi bu ñu tuddé INA euh, na the Immigration Nationality Act 236 A le tuddu ok mhm. dafa ne 236 A la INA Immigration Nationality Act ma wax len loi bi fu mu joggé ak li tax ñu lay japp 236A moy 236A non la tuddu Non la tuddu ok ok loolu dafa autorisé ñu detain alien yow mi ko cross ci border bi yow mi aw foofu ñu téye la jàpp la ñoom ay teg loxo ci yow comprendre nga am na nag may na leen loo xam ne nii par exemple yow mën nañ la bàyyi gëm-gëm moom la ñuy wax ROR release on own recognizance di nga gis ñu ñëw ci camp bi dañuy wax rek ñu defaral leen ROR ne leen dugg leen ci dëkk bi

ok donc li ngay wara ñëk def moy dañ jox pouvoir doole taxaw ci bi pour génné ak mhm. donc li nga leen wara def moy respecter liñ la wax. vous waree présenter, wu nga dem présenter. wu vous taxaw ci kanam juge bi nga taxaw ci juge parce que dañ la ci notice to la NTA bi da ne bu juge bi ci adresse bii lañ lay fekk ay d'accord ci te dangaa signé ne bu la juge bi soxlaa da ngay ñëw taxaw ci kanamam looloo tax ñu bàyyi la donc ñaar yooyu waroo ci def leneen lu dul dëgg mm-hmm. parce que adresse boobu nga bind AIS moon yow yaa ne AIS bu ngeen ma soxlaa fii laa nekk ñu ne la demal donc noo taxaw ci kanamu juge bi ne ko damaa jot sama lettre moo tax ñu leen di wax bu ngeen taxoo quatre jours na ngeen ko leeral Parce que li ngeen wax dafa leer ok yow yaa ne juge bi comprendre naa ne man boo ma woowee damaa war a ñëw Aïs bu ma soxlaa ci adresse bi la may fekk donc munoo taxawaat ne ko jotuma fa lettre parce que boo fa jotoon juge bi dafay na laan lu tax ci cinq jours yi ba ngay toxu waxoo ko comme ça ñu changer sa adresse yónnee ko fii erreur boobu loolu ñëpp di def. xam maanaam maanaam da nga ne. Mm-hmm. comme booy buñ duggee dañuy ut benn adresse rek duñ fa sa dëkk mais neen am adresse rek. Mhm. léegi da nga wax ne adresse boobu buñ ko joxee nguur gi. Mhm. Mhm. ñoom bu ñuy bind lettre ci adresse boobu nga jox leen leen koy bind. exactement ci adresse boobu léegi su fekkee dëkkoo ci adresse bi doo am lay ne eh, jotuma ko jot naa ko parce que yaa leen jox adresse bi. yaa leen jox adresse bi. léegi nag lan moy xew bu fekke yonne nen la lettre ci adresse bo te yow fa joto ko luy xew. parce que xam nga lu bi luy problème mom yonam nekkul ci dila wër ci amerique bi. Mhm. yow ya bëgg sa chance bàyyi ñu bàyyi la dëkk bi yaay taxaw ki sa matuwaay. Mhm. munul convoquer 1 million de personnes. Mhm. dix personnes yi ñew ne jotuma mu ne leen nan la yenen yi 90 euh, personnes nan la 90% def ba ñëw wuyu si ma. tu vois. péjoratif exemple rek la ok hmm. donc it is critical fi nga wax ne fa nga dëkk hmm. même bu fekkee ne loi bi sax moom du la force na la fi ngay toog mën nga toog dem seeti sa nijaay seeti sa mais fexeel ba nga bàyyi fa directive yu leer lettre bu excès ñoom nañ la ko jox parce que il y va de ton intérêt pour nga hmm. taxaw ci kanamu juge bi ku war a décider ndax da ngay dem wala da ngay toog bu la convoqué da ngay ñëw Muna ànd ak sa téméré morom 99 yépp ñew yow nga ñew ne ko jotuma sama lettre bu boba dila né ah yow xaarama tek sa dossier fé bax ak say morom yi bëgg tok ok mm-hmm. donc ñu jall ci benen point. number C ok mm-hmm. point benen point bi moy, li nga wara def moy. you have one year am nga 1 an pour dugal sa asile ok comme li ma doon wax demb am na ay exception mën nga ñëw ci dëkk bi jël say kayit jox ko koo xam ne mënul xamul lu muy def jàng ko musu koo def mu indi la ay erreur juge yi dañoo faire dañoo jub te du force dañ koy def rek discrétionnaire ñoom loolu dañ leen a jox doole mën nga bind sa lettre explique sa moom la ñuy wax ineffective counsel damaa ñëw ci dëkk bi am ñu may jàppale xamuñu li ñuy def ñu induire ma en erreur d'accord. Mm-hmm. lolu amul problème. balma balma balma baal ma allez-y allez-y orange yaa ngi bind rek mënumaa xam loy bind lan nga bëgg laacc laaj. waaw salam ok dama laacc par exemple nit ki ci yoon bi la jaar légui mais daf ma daf ma bëggoon scam buma ko report police lan moko ci fekk. ok maanaam yow yaa ngi Amérique right now. yeah. waaye dafa am ku la scam wala daf la bëggoon a scam ban la ci. daf ma scam. daf la daf léegi da ngay laajte soo ko reporté police lu ko ci war a fekk. Mm-hmm. ok thank you so much baby Super, paree si li muy expliquer ni ma laaj ko parce que cas bi c'est un peu plus complexe dinaa la bind si kii bi jox ma sa numéro ma wax la ko suba ñu ràcc cas bi yow ku la war a toroxal ma toroxal ndeyam barki Cheikhul Tidiane doxal sa dox ma sa numéro expliquer ma cas bi suba ma weer ko ni géej waa d'accord ko message love you baby love you too mhm, Bal ma madame madame Diouf continuer li nga wax mhm. d'accord d'accord ok lan mooy scam bëgg fàllu scam mooy tappale dafa am ku ko tappale mooy scam. Mhm. ok d' accord d' accord. Mhm. Euh, léegi nga mhm. dem nga am one year defaloo sa asylum mun nañ la bàyyi nga dugalaat sa asylum after one year mais dafay am critères yoo war a respecté parce que xam nga lu tax c' est la nature humaine nit ku doomu aadama bëgg lu yomb gis nga loolu bu ñu ko réglementé woon di nga gis ku fi toog sept ans doo dugal sa asile. comprendre nga. Mm-hmm. léegi nag mais loolu danga koy teg ci base yu leer mm-hmm. lu tax nga tardé lu la indil lii lu tax nga def lii ba pare nga dem dem nga débattre point par point boo ko convaincre amul problème mais boo ko convaincrewul kooku it's up to her it's at her discretion mm-hmm. par exemple kenn moomu leen ba taxaw ak ñoom ne la danga maa war a gëm wala lii ma wax dëgg la non the burden of proof mu ngi ci yow say preuve kay da koy indi ñoom dafa ñu ñi discerner li mën a nekk ak li mënul nekk segg li mën a nekk ak li mënul nekk ñu rendre seen decision move on to a different case li ma leen di wax moo bii di ngeen ko dégg everything is discretionary lépp c'est à la discrétion du juge kenn moomu leen kenn juru leen kenn jëndu leen da ngay def li ngay def ok. Mhm. da ngay def li def après nga bàyyi leen ñu def seen mhm. ok merci. jërëjëf ci leeral boobule. kon yéen ñi nga xam ne. Mhm. yéen a jaar ci yoon bi. ngeen vous woon ma laajte yi démb. loolu tontu bi léegi dafa am beneen question buñ jox kii mu ne. dafa duggee fiancé visa. ok yéen ñi xamul fiancé visa. Modou Mbacke Diaw jëluma la yéen ñi xamul fiancé visa mooy ki nga nobanteel war a takkante ak moom mu dugalal la visa ñu may la visa nga ñëw ci réew mi loolooy fiancé visa boo xasee ba dugg Amérique fi nga duggee ba quatre-vingt-dix jours muy ñetti weer da ngeen war a sëy bu ngeen sëyul loolu yàqu na léegi. Mhm. ki nga xam ne dafa am fiancé visa dugg ci si réew mi. ki ko dugaloon fiancé bi. Mm-hmm. ñu nekk ci am njaay indi jóob am njaay indi jóob ba xuloo duuloo. Mm-hmm. kooku lan mooy chance am wala lan la war a def. parce que ki ko indi woon fiancé visa bi bàyyi wante neen dàq na ko gër gër raak nañ ba génn tale lan la war a def. ok cheikh bi question bi dafa important et dinaa ci laal point yu bëri. ok mhm. loolu ñu ngi ko tuddee kay visa. moins 200 en français en français. am nga trois mois mooy quatre vingt dix jours pour def sa marriage license. Mm-hmm. ok but amul droit amul benn loi ci dëkk bi bu ne ne da ngaa war a toog américain bi di la sonal di la bunduxataal di la di la di la def yu bon nga war a toog rek parce que sinon soo génnee ki sëy bi rek après ñoom duñ la jox kayit loolu amul fenn. ah. déglu ma rek. ma wala. daanelal mais li nga ma man dama ko mës a dégg di. boo dégloo jàng déglu. jàngal dafa am catégorie. Mhm. da war a wane lu tax nga def late mm. nga ne man kat faylu ma à temps parce que lii. Mhm. da ngaa war a wane raison yu spécifique. muus mi jaar na fii xar bi dafa taw te yooyu duñ ko dégg. ok sa sa sa delay bi delay bi mooy sa retard bi dafa war a jóge foo xam ne circonstance joo xam ne yow munoo ci woon dara looloo tax may chaque fois may wax ne dëkk bi dañoo feer muy Amérique gii Amérique gii dañoo feer ci seen loi ndeysaan parce que xam nañu suñu deful lu dul yoon nga dem ci keneen keneen dem ci keneen keneen ci ba ñu dem ba cour suprême ok euh, ba pare euh, retard bi dafa war a raisonnable cheikh bi munoo toog dugg si quatre vingt dix jours toog ba beneen sept naan da ngay dugal xam nga loo raisonnable. waaw donc critères yooyu yëpp da nga ko war a miit soo ko miitee nga def sa dossier bu fees sa dossier bu mat sa dossier bu doy nga yóbbu ci kanamu magistrate. Mhm. ok USCIS I'm sorry USCIS. Mhm. ñoom dinañ la atte atte bu jaar yoon. nga wane sa enough proofs xam nga suñu mbokk yi lan mooy problème bi. Euh, ma jaar tuuti ci benn cas bu sensible da ñëw indi nit ci dëkk bi. daal di nekk ak moom. war ko dugalal kayit. boo pare daal di koy takkal benn cravate boo xam ne yaa koy may air. bu teyee nga ne ko nooyul bu subaa nga xëcc cravate bi xot ko. maanaam indi la fii ba pare wan la ne ñooy sa yàlla ñooy sa yonantu parce que ñoo la génnee Afrique. waaw déglu ma fii rek. Mhm. gis nga loolu soo ko defee. loolu in itself. loolu dafa constitute abuse. ah. déglu ma rek xareegu ma de ma leera ko ba mu leer. the simple idea nga defe ne yow yaa moom nit ki te yaa koy jox kayit te immigration USCIS moom moo koy jox kayit on the back ci ginnaaw dañuy def property of USCIS. da yow ko ont koy self abuse la. non non d'accord man mako ko Afrique. nak mais luma neex la wara def luma man man man parce que mako fi tek ko may kayit man may avec tout le respect momo Amérique tam beaucoup fi être humain comme yow. ok am unalienable rights yoo xam ne those rights are afforded to her dafa am ay droit ci dëkk bi du benn mala boo romb ci biti mala sax dañ koy respect ci dëkk waxuma la ak doomu aadama ok te loolu mën na faay lu ñu tuddee VAWA euh, violence against women's act mun na nekk women mun na nekk child mun na nekk góor dañ ko tuddee VAWA rek parce que jigéen ñu bari ñoom ñoo ko doon faayal but at the end góor mën na ko def jigéen sa jabar du la fi indi di la teg yooyu fitna nga koy seetaan sa jëkkër bu mu la indi di la teg yooyu fitna parce que moomul kayit gi yow da nga ko dugalal mu dem immigration ñooñu ñooy décider te kayit gi buñ ko xasee ba jox moom moo ko moom moomoo ko fii amoo kenn fooy jàpp wala fooy coincé parce que joxe woo ko ko moomoo ko. Mm-hmm. so we have to be very very very cognizant of that. dëkk bi olof lu muy wax mën ngaa olof bi euh, am na benn proverbe bu ñuy wax mën ngaa lijjant def lu ne ba mu des xamee munoo ci moom immigration xam nañ ko yow génn ci sa yoon nekku ci ok moomuloo kayit bi kayit bi bu ñëwee turama ci nekk indiwoo ko ci dëkk bi moomoo boode bi moomoo dëkk bi te dëkk bi dëkkul waala kon vow bobu nonu woman bi ci nek gor mun na mun na na file vow absolutely for a woman for a child gor mën nako jigen jigéen mën na ko xale mën nako dañu ko categoriser nonu rek wa mais yow li ngay wax ni tam baxut ci man parce que man buma mon jabar indi ko war ko nap diko bundu khatal mu yakar ne mako indi ke yang may wer yang may wan ne li yow yaangi wan jigen ñi ne bu la fi indi mhm. di la toroxal bu sey bi tassay taxut la ñak am kay di nga mëna am kay man pour mu leer je ne suis pas duma féministe dama dama bañ injustice góor gi tam buñ ko defee loolu na xam ne ku jigéen ki moomu ko pour muy leer góor ak jigéen ah. ok loolu foofu leer na foofu bëgguma nga insister fa parce que man dama bëgg a napp suma jabar ba lu ma ko def defal mu def bàyyil mu bàyyi foofu arrangé wu ma. mën nga ko nappee ci beneen façon ba mu des affaire u kayit. waaw dëgg la. thank ñu jàll foofu léegi. ki nga xamne ne dafa sëy waaw mhm. dafa sey ba paré yes mhm. ñu duggalal ko kayit yes ñom ñaar ñepp nga yes jëkër ji mhm. ndax mën nako téré am kayit wala mën nako ko baña xañ mën nako ko xañ wala bu sey bi tassé ndax jigen bi dina am kayit wala góor bi amul ndegam amul benn loi ci adina buy forcer nit mu tok ci mariage bu ko arrangé it's as simple as that. sëy bàyyi leen ki ngeen di gërëm naan ko merci li muy wax arrangé wu ma man dama bëgg a not suma jabar napp ko teg ko benn place ngeen topp ko wax nga dëgg foofu bu mu fa insister léegi tey ma bloqué leen yéen naa fex yu bon nii ku ku continuer ñi ay seytaane leen ñu ngi naan merci merci merci wax nga dëgg wax nga dëgg yooyu arrangé wu ma yenn dëgg yi bu ci bu ci insister léegi kon comme man ma am jabar nii ñu dem hmm? ba mu yàgg ma bugg ma bugg koo sonnal wala sëy bi tas ma koo xañ kayit. Euh, de un sa propriété yow moomoo ko juróo ko jëndoo ko ba defe ne yow benn euh, buum nga yore rek di xëcc muy topp sa ginnaaw moomoo ko de euh, avec tout le respect nag yow kayit bi produiroo ko dugguloo ci sa biir ordinateur wala sa print print jox ko ko non non gouvernement bee ko jox. te bala ñu ko jox def nañu seen investigation ba ñu xam ne ni kii yelloo na kayit bi kon yow du yow yaay ñëw ne rek koy nangu ci muy leer thank you mais mais su fekkee ne comme war nañoo am interview ma bañ a dem dina ko sonnal du am kii su ma demul. boo ko demul boo demul li dinañ def seen investigation bu la neexee nga dem je sais pas euh, euh, euh, naka la de Maldives nga toog fa benn deux ans nga bañ a ñëw. ndax yow di nga tere immigration def seen liggéey quand même. mais gis naa fi ñoo xam ne dañuy dem ba waaj a am immi eh, dañuy dem ba waaj a am euh, euh, appointment ñu war a dem interview góor gi na la jox ma two thousand dollars soo ma joxul duma dem wala kaay ma tëddee la su ma la tëddeewu du dem wala góor gi romb la fi sa dem Gambie da da lay romb am naa suma benn nit. oui. dafa sëy góor. yes. góor gi suñ waree am interview mu romb ko fi dem Gambie toog. laaj ko xaalis mu jox ko laajaat ko xaalis xam nga du góor gi mujjee def. Mhm. bindi immigration na leen suñ sëy bi du dëkk maak moom. anam waaj waaj jigéen bi altumetum na ko gaawal nga tontuñu may neen la bés sàngam. request for evidence la tudd RFI xam nga ñoom duñ ne teel rek ñu ne damm na. Mhm. loolu laa leen wax ne bu leen des fois panique panique goo xam ne da ngeen defee ni ñii dañuy nekk fii rek tëll rek wala kenn wax rek ñu gëm la dañuy def seeni i investigation mhm. moo tax ñu lay defal aari fii des fois ñu may la three months des fois ñu may la four months quatre mois ne la tontu ñu mhm. indil sa évidence bu la góor wala jigéen naree def loolu bañ a dem waxal sa dëgg mhm. truth always prevails dëgg moo njëkk te mooy mujj ci mm-hmm. any type of any any any any line of work any type of business. Mm-hmm. bind leen wax leen li corroborating evidence Nenen li moi mooy dëgg bi lii moo fi am évidence yaa ngi nii nga bàyyi leen ñu def seen liggéey l' du ñu mës du mën unfair wala unjust ci yow duñ ko def. Mm-hmm. the truth always always liberates the individual da lay libéré. confession is good for the soul ok. ok Mhm. nga takk jabar dugalagoo ko kayit immigration waaye sëy ngeen legally yes seen sëy bi tas dugalagoo kayit kooku du am kayit de bu fekkee ne par exemple da nga ko doon abuse di ko bundu xataal te abuse bu ñu defee ne rek ay dóor la yow sa rëyaay bi yow sa ñuulaay bi yow sa wawaay bi yow sa lii loolu lépp abuse la psychological eh, man kon internet bi yàgg neen ma abusé de ku fi ñëw di nga wax suma bopp bu rëy bi suma ñaawaay bu set ma man am naa kayit man donc den maa abuse man yàgg den maa abuse ku fi ñëw suma live fii suma taalibe yi sax den may abuse dañuy ñëw sëñ bi sa bopp bi compliqué na sa bopp bi dafa rëy sa ñuulaay bi te yooyu daf may naqari ba duma lekk duma naan den ma abuse waa mais loolu sëyu leen dañuy wax dans le cadre du mariage ok léegi su fekkee ne da ngeen a nekkoon ci sëy bi mu bundu taal la def la def ko lu la neex def la lu ko neex muy góor mu jigéen dem yoonam bu la neexee ndëgal sa baawa Mm-hmm. ok dugal sa baawa am say preuve leer wan ne ne leen lii dama duggoon ci sëy bi. Mm-hmm. ngir yàlla ak rasulullah sallallahu alayhi dara lu dul bëgg koo sëyal mais lii laa ci dund la ma wan musuma dugalal kayit boobaa you'll have your dinañ la déglu dinañ xool say evidence bu soxlaa yeneen dinañ la yónnee RFI. waa léegi. su fekkee ne. Mm-hmm. man dama amoon yaakaar ci jigéen takku ko mm-hmm. ma ko verbally mentally financially there is no abuse mm-hmm. mais maa ko bëggatul mais nag sëyoon neen legally dugaluma ko kayit kooku soo amul benn abuse mënta am kayit duma it's case by case te duma ne mën na am kayit wala mënul am kayit duma ko wax loolu parce que it's case by specific to each case that's all I can say ndaw si dafa duggoon léegi mu laajte. oui. mu ne dafa am ko jaar ci yoon bi. Mm-hmm. ba pare. Mm-hmm. amul kayit mu mm-hmm. saam ko. mu ne su ko boolee ci police yi lan moo ci mën a fekk kooku. foog mu spécifique kenn mënula tontu ay euh, question te fekkee ne moom spécifiqueul what does mm. what does she by scam lan mooy scam ci waxante bi la ci liggéeyanti bi la ci foog mu leer. Mm-hmm. ok uh, yaa ngi bind clock clock clock Fallou loo bëgg a laajte li ngay bind xaw ma ci dara Fallou njaay génneel sa micro bi dafa miit Fallou Ndiaye. ñu ngi ziar seex bi. looy bind di laajte lan la lan la. seex bi ñu ngi lay ziar colloque lañ ko bëggoon a laaj colloque bu taxaw. luy colloque. mooy horloge. colloque mooy seen li ñuy calculer pour xam ndax mën nañu cent cinquante jours pour mën a dugal work permit loolu lay laaj. waaw. Ah. waa Fallou dalal nañ la yaa ci jàmm. Fallou Kay bu ko dalal ak bureau wàccee naa ko léegi ñu ngi bind clock clock léegi luy luy tontu bi ci loolu. <laughs> bi parce que boo ñëwee ci boode bi dugg si da nga war a am mm-hmm. cent cinquante jours pour mën a dugal sa work nga may leen trente jours ñu liggéey ci loolu mooy tax ñu nekk hundred and eighty mooy cent quatre vingt jours. Mm-hmm. léegi nag ñaari mbir mën na arrêté clock and again ça mm-hmm. dépend ci cas bi mais ñaari mbir en général ñu arrêté clock. nga tardé sa fingerprint parce que nan ngay bëgg work permit ci dëkk bi ñu war a xool sa fingerprint ñu convoqué la ñëwuloo mm-hmm. wala nga jël sa dossier yónnee woo ko tribunal bi nga ko war a yónnee nga yónnee ko ku xamul yónnee ko beneen tribunal nga xaar leen ba déwén doo gis dara. Mm-hmm. moo tax dee leen dem ci ñu xam li ñuy def. Mm-hmm. d'accord allez-y. Euh, kii mu ne dafa dugal asylum yes. ba pare ñu rejeté ko dañoo rejeté asylum bi. ok. ndax am na beneen chance walla moom wërsëgam jeex na comme asylum la bind jox ko juge bi juge bi na ko génnal. ok dafa am ñaari façon génnal ñu rejeté ko ndax kooku am na chance. ok loolu mën na demander cancellation of removal. Mm. after bu fekkee toog na ci dëkk bi dix ans mooy gën a yomb. xolu yaayam kaay nga laaj sa question man xaw ma looy laajte lan mooy sa question xolu yaayam xaw ma ko. Mm-hmm. ok moom la ñuy wax cancellation of removal. Mm-hmm. nga toog ci dëkk bi continuous present. meaning mm-hmm. demoo fi Canada di daw di ñëw te parce que loolu buñ ko gisee parce que nekkoo continuous presence in America. ten years. loolu mën nga demander juge mu defaral la cancellation of removal wala lu ñuy tuddee PD nga dem ci juge bi prosecutor discretion nga ne ICE bu leen ma topp bu leen ma dellooti discrétion dafa leen di neex. Mhm. parce que moom moo leen et puis c'est pas forcé. barito. Mhm. ok. Mhm. am na sax after three years. boo defee boo meetee certain conditions. ok. Mm-hmm. mën nga apply certain waiver mm-hmm. boo par exemple ma jox la exemple nga toogoon ci dëkk bi toogoon ci dëkk bi lu yàgg jékki-jékki daal di génn demal sa bopp mm-hmm. ok bëgg a dugg si waat nga temps biñ la mayoon mais yaa ngi Sénégal da nga bëgg dugg si waat da ngay def benn waiver bu ñu tudd waiver 42A bi nga xam ne daa yaa ngi koy defee Sénégal pour mën a dugg si waat buñ ci d'accord procédure euh, it's discretionary dañ lay bàyyi nga dugg si boo ko gañee mm-hmm. wala nga toog fii ci dëkk bi ok mm-hmm. wala nga toog fii ci dëkk bi mooy forty two bii ok but forty two bii xam nga luy problème bi mm. danga war a wane ne yow buñ la delloo Amérique buñ la delloo senegal te mm-hmm. doom yi nga fi yor américain bi dina souffrir te jëkkër dina souffrir nga wane ay preuve yow ñoo américain bee leen ñor Oh. yow ñoroo leen mais danga nga ak américain bi directement kon ñoom mënuñu la écarter di xool américain bi. ok.